sax xam nga ku amul programme mënu mënoo dem xam nga il faut ñu xam ni euh, boy tek ay jalon politique sa première jalon mooy jot jot li nga soxla collectivité bi wala dara pour diriger ko mais une fois nga toog fa danga ngaa am un war a am un programme booy dérouler programme booboot ab équipe ay tax nga man koo dérouler mm-hmm. équipe technique wax na ko ci conseil de quartier yi mënu ñoo am ay commission environnement ak yooyu yor de retraité comme ni mu ko waxee ay ay ingénieur ay administratif ay enseignant ñoo xam ni d'abord ci démembrement étatique bi nga am muy micro demembrement di quartier bi boo ci tàmbalee rek mën ngaa régler lu bari nga toog di doo leen utiliser doo leen nga sappe leen comme ni mu ko waxee presque lay conseil de quartier doxatul ca mi ngi wax ni idée bi sa date de Aminata Mbengue Ndiaye. sa conseil ne ci mairie yi ñoom gënuñoo dox. non non non doxul dara doxul lim lay wax ni wax nañ ko fii ci plateau bi Malick Sow bii doon na wax ci organigramme maire beeg nin war a doxeeg yooyu yëpp les programme politiques xam nga fii. quoi qu'on dise muy l'actuel maire muy Moustapha Diop bi mu dikkee benn programme lim lalee dikkam mooy yor naa sama xaalis danaa créer ay groupe ñu fal ma du du baasu programme li mu wax ni dañ koy nangu nag aussi. jeunesse aussi def na ci lu am solo. non non non jeunesse jeunesse bi aussi ak i groupement yooyu yooyu yëpp pour dajale mbooloo électoral la rek man xam naa comment ça se passe man li muy wax ni acteur politique laa comme moom li ko naqari moo ma naqari mooy kañ la ñuy am ay acteur yu impliqué wu pour mën a sauver. localité bi foofu la des ca loolu acte trois de la décentralisation daf koo maye xoola maa ngi lay wax léegi ci li mu wax noonu pakaseen bii nga xam ne tey euh, boo demee Kaolack Serigne Boub dafa utiliser ASC yeeg yooyu mhm. ñuy pavé mhm. mais ban dëkk loo fi seen c'est bien beau boulevard boobu d'accord dañ ko war aménager mais est-ce que foofu rek la programme pakaseen boobu waroon a yem programme d'aménagement xaw ma d'amélioration des collectivités et et xaw ma agglomération du Sénégal loolu la waaw léegi ñan ay partenaires au développement comme li ko wax ñoko appuyer agence française de développement ak ay BAD ak ñoo ñoko appuyer appuyé <coughs> lool la la diaspora bu la doon indil ay partenaires xeyna démembrement loolu rek la lay indil ab conseil de région wala conseil départemental la lay indil wala des partenaires au développement yu yoo xam ne localement dinañ man dara waaw bu fekkente ne yow amoo programme très bien amoo programme <laughs> xoola bu fekkente ne amoo programme comme ni ko euh, Alfred waxe

nga jot koo aménagé <coughs> moom nga bëgg xëy suba rek rajaxe ko pour lan parce que am na ay velléité immobilière et foncière yu am yoo xam ni qu'on le dise ou pas mooy li amoon ñu ba ñu bari wax nan ko mm. léegi est-ce que loolu de manière concertée lan war a toog waxtaan pour aménager sunub dëkk wala est-ce que dañuy bàyyi kenn ku ci leen di tañaxu di mbëkk di dem du jàll mm. ñépp ci am wàll le côté ligue sport yi dañ cee am wàll euh, côté politiciens yi am ci wàll conseil de quartier yi am ci wàll dafa de manière concertée lan wara aménager ab deuk mm-hmm. ab deuk itam mënoo koo yor ca ken du la gis ngay absent le grand absentéiste de de de cette ville là c'est le maire de la ville mënta yorub ab deuk mm-hmm. ab deuk pour nga yor ko dang koy tim mais amna pouvoir amna amna prérogative délégué aussi non ban délégué comme doo koo gis mu délégué ko ko xamni bo boutique réew mi dëkk bi limuy muy rajo ko yëpp mooy na ko ñëpp topp di ka jëlub xaalis mm-hmm. buñ fu joggé paré nañ ci feeñul ci club yu nawetaan yi feeñul ci marché yi maa ngi lay wax ni la maa ngi lay wax ni la li xew ci euh, marché Louga bii fi ñuy juug mbalitum jën mi mm. ba tey boo xëyee suba falan koy juugaat mm. boo fa rombee doo noyyi kañ la ñuy am système bu bu loolu pendant pili de dix ans mm. boo demee marché central bi nekk gannaaw raay oto jën yi fi nuy taxaw day nëb bay saxe ah xam nga aussi boo xoolee wëtiir yi même format bi ñu doon doxe la ñuy doxe da gis benn voiture bu la rombagul ak plaque su xoosoon tey oto aale fu ku aale di porter plainte wala ku ci yem LV nangam si LV 600 nangam cest à am réew wala ab gox day dox ci programme d'aménagement ba pare dañ koy réguler régulation nag au quotidien la de bul defe ni da ngay bàyyi ba élection ñëw rek nga taf yëngal ni yaa ngi réguler déedéet dafa war a am